kon mooy mooy kaddu ngërëm kaddu baneex ci euh, bésu juddu Yeesu Krista tey bu ñuy donc euh, fête anniversaire bi euh, wax naa ko sànq ñu ngi woon Tiwaawoon ak dëkku kilifa dëkku diine yëpp n'est-ce donc fête nañu juddu donc en tout cas la naissance di prophète Mohammed paix et salut sur il y quinze jours e à nouveau à Ndiassane il y une semaine donc fête nañu ko. tey dañoo fête juddu Yesu Christ bi nga xam ni mooy suñ yaakaar ñun chrétien ñu yaakaar ni moo ñuy dugal ajana donc loolu lu am solo la pour ñun donc baneex boobu dugg na ci donc ñëpp ñi fi ñëw tey ak bépp chrétien fi mu nekk mu ngi koy fête donc euh, loolu donc euh, c'est un message de de de paix. diir et dire que on a de joie am na ñu donc mbégteel bu parité. boo ko méngalee léegi na weer a ngi nii Fandène ñu ndox muy ay jafe-jafe mais kenn déggul waa Fandène ñu kaas wala ñu wax ndax loolu dañ koy méngalee ne ni leen yaree ak discipline bee ko waral wala dañ yaakaar ne maire Augustin Tine dana ko wax fa mu ko war a waxee te daañu ko réglé. non li ma ci war mooy gërëm leen euh, li li tax ñu am attitude boobu kooku yaakaar naa nit ñi ci biti ñoo ko war a xam. parce que comme ñoo ma meññ xam naa yaakaar ni peut-être am na fu ñu ma fu ñu ma fu ñu ànd man ci ci ci li may def donc vraiment damay dama leen di gërëm di leen sant ci attitude bi ñu amee mais di wax aussi profiter ci occasion bi di wax Mansour ni nag affaire bi mi ngi bëgg a yàgg sama xarit donc le ministre de pour wax ko mu jàppale ñëw pour que ndox mi euh, vraiment mën a ñëw biir Fandène parce que ça fait problème bi forage bi Euh, donc moo am problème c'est-à-dire que mënatul am une quantité d'eau pour que ñëpp mën a am alimentation bu doy loolu la donc euh, dañuy obligé pomper bu ñu pomper ñu jox ñii euh, donc ñii am benn fan ñi am benn fan et puis un temps court donc il faut que ñu def ko ci gourde yi moom lay def ma nit en tant que maire parce que je partage ça aussi ak ak waa ak waa Fandène donc dama ciy gërëm bu baax donc population Fandène di leen wax ni en tout cas dinañu def tout pour que ndox mi gaaw a ñëw. jàmm maanaam Euh, Gambie lan moo ci euh, euh, kàddu ministre des forces armées ak li ñuy wax ne Sénégal pare na moom pour que le 19 soit jàmme dem si jàmm wala Sénégal jëlay ay matuwaayam. kooku li ma ci wax mooy nii kàddu CEDEAO donc mooy mooy Yaya Jammeh war na le 19 donc bàyyil nguur gi ki nga xam ni dañ ko fal ci règle yi nga xam ni moom moo ko tegoon mu d'accord ne kooku gañe na mu wëlbati kuwaat ni euh, loolu nangu résultat yooyu CEDEAO nangu ko Union africaine nangu ko euh, euh, donc ONU aussi nangu ko donc yaakaar naa kuréel yooyu mooy kuréel yi gën a mag nest ci àddina ñoo ñëpp buñ ci d'accordul am naa yaakaar ni yaaya war na am donc matuwaay ba xam ni fi mu ne nii nguuram ñaari fukk ak ñaari fukk at ak ñaar yore na ko réew mi nit ñi nangul ko ko bu fekkente ni am na keneen ku gagné léegi war na nangu ni que kooku war na mën a jiite moom ñu bàyyi ko mu dem ca fa mu fi ñu yaakaar ni war na fa mën a dem te am jàmm ne mais am naa yaakaar ni fi mu ne nii eh, ñëpp d' accord nañu waa Sénégal aussi d' accord nañu parce que eh, am na yaakaar ni démocratie lañ nekk 2000 jëlee nañu fi benn président 2012 eh, ñu jëlee fi benn président donc ñu yaakaar naa ñun taamu nañu ko. dañoo am yaakaar ni aussi Gambie bi nga xam ni mi ngi ci biir Sénégal di suñu mbokk di suñu xarit war nañu nangu loolu pour que jàmm am ci sous région bi parce que yaakaar na am nañu yeneen défi yoo xam ni moom la ñu war a relever. Sénégal moom pare na pour jëfee ndigalu CEDEAO. Euh, Sénégal dina jël responsabilité ci lépp lu ñu ko jox. jërëjëf li ñuy xumbal tey mooy jàmm ji jóge asamaan te wàcc ci suuf si loolu ko waral mooy yàlla ni mu soppe yàlla sopp nañu sopp ba néegu la sax def boppam nit jël sunu ndeytaayu nit ndax dolli ñu ci yàlleefam loolu indi na bànneex ak jàmm ci xol yi te moom ngeen gis moom la ñuy xumbal moom ngeen gis ci àdduna si sépp di ñaan ndax jàmm ak bànneex boobu gën a sax ci xol yi soppali nit ñi ñëpp ba ñu dellu ci dëggu ngëm gi dellu itam ci dëggu nit ak nit ndaxte loolu mu am solo li ci des yëpp alub neen la donc nu ngi sant yàlla ci xewte gile te di ñaan ndax mu jëru jàmm ak bànneex ci àdduna si sépp jàmm jooju ci àdduna si woo xam ne yëngu na ginnaaw ñaan yi mais taxawaayu fidèle yi doomu aadama yi lan la war a waaw dafa war a njëkkee ci ku nekk saytu njabootam ni ñu ko waxee ci sunu paroisse saytu itam diggante nag moroomam soppante sopp moroomam nee naa sànq yàlla def ñu sopp coofeel googu lañu ñu war a roy te bàyyi lépp li ci des donc ku nekk su jéemee ci wàllam ci as tuut la muy def loolu dina màgg ba xëj na ci biir àdduna si sépp ni ñu ko bëggee jàmm ak bànneex wéy ci